Adji Sarr Ousmane Sonko ngay saaga Ousmane Sonko ngay wax ju ñaaw yow da ngaa woyadi yow da nga woyadi ci kanamu sénégalais yëpp sénégalais dañ laa multiplier def la comme zéro yow fu mu nii ci kanamu sénégalais yi dundatoo nekkatoo ci kanamu sénégalais yi loolu moom bu yeboo nga def ko sa xel. Adji Sarr yow da nga woyadi lépp na tous les nag da cee woyadi donc nag bu ñu sonal Sonko du toog fi di dàgg santeeg yow. ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy patriote yi ñun ñooy dagg santeeg yow te du la may dara te loo bax ñu ngeer ko déggoo ma de te loo bax Adji Sarr ñu ngeer ko ñun faalewuñu la lijjantiwuñu la xooluñu la sax bañ nañ ko sa lijjantiwuñu sa dara donc Adji Sarr may ñu jàmm nee nañ la boo génnee wax ci Sonko ñu génn wax ci yow wax ci yow ba jéggi raay waaye nag dafa am li nga xamante ne xoolal Ousmane Sonko moo ko ñun ñoo ko moom ñun ñoo koy def kooku patron la chef la mooy nekk sa président ëllëg déggoo ma de ki ngay bañ nii moom mooy nekk sa président ëllëg xanaa nga dugg biir bàmmeel rek mooy tax du nekk sa biir président mais tant yaa ngi dund nekk biir Sénégal mooy nekk sa président 2024 Ousmane Sonko donc waye de bi nga doon ñàkk fulla ñàkk personnalité ñàkk gëm sa bopp rey sénégalais yi ba pare ñoo fi duñu fatt di ñu bëgg a rey naan Ousmane Sonko nii Ousmane Sonko naa ah waaye demal nga oui ah waaye demal waay hmm. jom man neexuma dara waay sa hmm, kanam gu bon bi ñaaw gi yow yaa yey saaga bi yow boo saagawul looy def yow yaa yey saaga ndax li nga daj ku ko daj ba pare dégg li nga dégg saaga rek a ciy topp xam nga nag jigéen amul lu dul boppam jigéen amul lu dul yaramam jël ay millions xëpp ko ci yaramam yaakaar ne bu paree sax jigéen ñu ëlbate ko ne ko yaa ngi mel ni dàndiñ yaa ngi mel ni buubu golo yow saaga rek nga mën a def rawatina nag nga paan kilifa te yow saaga woo Ousmane Kese yow xam ne ñi nga njëkk a saaga mooy ñi ñu violé xale yu jigéen ñi nga xam ne ay victime viol lañu ñii ñu ngi leen di dàmp pareeguñ ñii ñu nga tëdd hôpital ñii ñu ngay yëg ak a wàcc amuñ ku leen layal yow ñun nga a saaga xam nga lu tax a saaga aji que yow dañ laa nga xëy taal live xëy taal live wax ñaata réew ñoo nekk ci kila la doon violé viol ni mu méttee ñi ñu takk seen i bët ñi ñu leen di dóor ñi ñu leen di gajj ñi ñu leen di nàccal lu ne ñu di ko daj yow nga xëy di compte ñaata réew ñoo nekk ci ki la doon violé kon yow boo saagawul lu la dese arme yi jeex nañu li nga xamoon jeex na amoo kilifa yow saaga rek a ciy topp soo ma bàyyiwul su ma génnee su ma waxee su ma ñëwaatee su ma waxee su ma génnee depuis trois ans yaa ngi ñuy kañ ngay wax aji maanaam wàccee ëmb bi wàcc daanoo ci gën a gaaw aji kañ ngay yolleeku ñu xam li ni ci ëmb bi lan la bul bu tojul du am njëriñ yow kañ ngay wax depuis trois ans yaa ngi menacé saa yu Ousmane waxee nga génn wax ne li ma xam dama la doon suturaal yow suturaaloo kenn sa bopp ngay suturaal yow aji xamoo dara yoroo dara dañ laa utiliser dañ laa yuus yow wéroo yow psychologiquement mentalement et moralement yow yow tu n'es pas wéroo ko pan kilifa nga amoo benn éducation de base téléphone bu baax sax joxuñ la ko mënoo koo am sa téléphone bi nga doon selfie di def vidéo ku ko xool xam ne téléphone bi appareil bi baaxul ñuy lekk ci sa kaw ay milliards waxuma ay millions de ay milliards ñu la wër di ko lekk ci yow téléphone bu baax mënuñ la koo jox xaw ma 3 heures matin nga doon def vidéo bi. maa ngi dégg nag ñu naan Ousmane Sonko waru ñëw Sénégal waru bi Dakar ah dafa war a ñëw gis nga ni ko Casamançais yi euh, defal nii dafa am important naka biir dakaar aussi defe noonu ndax procès Adji Sarr bii procès naafeq la gis nga Maître El man mënatuma wax ci moom dara ndax amul classe amul valeur xamul ak yellefu sénégalais yi moom intérêt personnel am moo ko jor moo tax man mënuma wax ci moom duma ko lijjanti sax li may wax mooy sénégalais yi yéen xale yi dama ne Ousmane Sonko bu ñëwee biir Dakar na ngeen def comme li Casamance siens def na ngeen def comme li waa Casamance def aar seen leader aar seen leader ba nga xamante ne benn golo benn picc du ko jege ndax nag Ousmane Sonko sonn na sonn na daj na coono bu ne ndax ñun. xoolal tey Casamançais yi duñ ko wax ne ko dem Dakar man de Ousmane Sonko barki sëñ Mbamba su ma sañoon doo dem Dakar yàlla xam na ko parce que li ma gis nii man de su ma sañoon doo dem ndax wóor yi ma gis ma gis wóor yi ma gis nii man de su ma sañoon doo dem Dakar waaye nag yàlla mooy dogal sa destin yàlla moo ko yor ñu ngi ñaan yàlla yàlla nga dem dakaar ak jàmm te boo demee Dakar yéen ñi nekk waa Dakar yéen ndaw ñi Dakar ñi def nañ ni Casamançais yi def. aar Ousmane Sonko ba nga xamante ne benn golo benn picc du ko jege donc aar leen Ousmane Sonko ndax mooy avantage yu Sénégal mooy avenir yu Sénégal jàppale leen Ousmane Sonko Adji Sarr moom dañ koy bàyyi ak yàlla ak yonent bi ndax nag mu ngi tax sénégalais yu bari di dee mu ngi tax sénégalais yu bari di dugg ci kaso ndax moom. ndax procès bii ñëpp ne leen ne seen procès démb bi procès fen rek la ñëpp wax nañ ko ba mu des naafeq yi naafeq yi rek ñoo waxul ne procès bi du procès euh, euh, euh, baaxul déedéet ndax ñoom seen intérêt la wut waaye nag sóoraale leen yàlla sóoraale leen yàlla sóoraale seen askan ñi nga xamante ne ñu ngi bëgg a lekk mënuñoo lekk lu baax sóoraale leen